hôpital Ndamaatu bi ñu commencé tàmbali liggéey bi ba léegi mot na at ak lu teg depuis boobu nag malade yi ñu ngi ñëw bu baax ndax balaa ñi doon tàmbale li ñu yaakaaroon ak li ñu am léegi dafa duble waa ndax fi mu ne nii malaad yaa ngi ñëw bu baax am nañ ay mille patients et quelques te au niveau de Ndamaatu patients yi booy xool bu ñu ñëwee daf leen permettre ñu gisaale yeneen spécialiste yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci jabet dina am ki nga xam ne mooy saytu wàllum rein kii saytu wàllum xol kii saytu wàllum bët ak ñiy saytu wàllum bëñ ñoo ñëpp malaat bi bu ñëwee ndaamaatu loolu yëpp daf ko fiy fekk. soxlaatul muy génn di dem ba dakaar pour di def consultation am dina leen permettre ñu gagner temps ba pare transport beek yooyu yëpp dina leen ko wàcceel te prise en charge bi day gën a gaaw. centre bi moom franchement. am na jeexital yu bëri yu mu am fii au niveau de Ndaamaatu ndax booy xool maladie dañ doon sonn di dem dëkk ak dëkk mais comme léegi lépp fii la nekk donc maladie ñu ngi ñëw ñoom daa jël nañ centre bi def ko comme seen moomeel. jabet bi moom boo xoolee boo jëlee li nga xam ne li ñuy wax ne mooy donn bi loolu sax booy xool am na ci njëriñ waaye nag ak boo bokkee ci famille jabet tamit nga jël ay mesures ci wàll lekk bi. di yëngal sa yaram loolu yëpp mën na la musal ci jabet ndax ñun ku ne xam na ne li ñuy lekkee baaxul suñu lekk day bari suukar day bari xorom day niin lool te loolu yëpp ci luy yóbbu nit ki ci jabet la bokk tension bi mi ngi fi loolu yëpp mi ngi fi yaram bu di bari bi mi ngi fi te loolu yëpp day indi jabet waa ñiy dund ak feebar bi di leen wax ne rek jabet feebar la boo xam ne nit ki mën na dund ak moom ay at nit ki mën na dund ak ay at jabet ndax nekk na loo xam ne li muy bañ loolu ngay bàyyi liñ lay digal nga topp loolu boo ko defee rek doo ci am benn problème. lii njëkk tamit mooy nit yi di dem di seet seen yaram ndax li ñuy wax jabet dafa nekk feebar boo xam ne euh, duy gaaw a yëglu mën na nekk ak nit ki nit ki du ci xam dara donc bu demee ba gis ne am na ay jeexital yu mu def ci yaramam rek ci la koy teela yëg moo tax nit ñi dañ leen di ñaax. ñuy dem ci bërëbu fajukaay di seeti seen suukar loolu dina tax bu ñu amee jabet ñu teel ko xam ñi nga xam ne aussi bokk nañ ci famille yu am jabet ñuy dem seeti seen suukar même bu ñu amul jabet tamit ñuy def lu mel ni sport xoolaat seen lekk comme li ma waxoon sànq wàññi lu niin wàññi lu am suukar wàññi lu am xorom loolu dina leen mën a musal ci jabet